effectivement euh, merci beaucoup Kajoor ci ci question bi naa def na dafaa leen transition par rapport ak euh, les trucs fonciers euh, gis nga souveraineté mënul am te réforme amul te refonte amul refonte du am te rupture amul ni nga waxee mooy est-ce que duñu confronté à un problème de temps ñu lay wax ne le projet qu'on a amené daa am des phases yoo xam ne ça enclenche et engage ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles et des phases yoo xam ne c'est pour une politique structurelle conjoncturelle mooy loo xam ne bëgg nañ ci di résultat jebbi jebbi te loolu action yi nga xam ne moom lañ ciy mëne mooy li nga wax mooy ñu fexe ba nit ñi. Mhm. lépp loo xam ne dafa jëm ci seeni moomeel delluwaat seen lox loolu noo koy defee mooy da ngay ñëw. samp ay réforme waaye avant réforme nga def état des lieux certes mën na xaw a jël tuuti temps mais defar moo mel noonu li naan ndar xëyul xëy rek sotti waaye xam nañ ni impatience bi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko ci yenn wàll yi moo tax ci yenn axes yi dañoo utiliser à la fois une mhm. politique conjoncturelle à la fois une démarche structurelle mooy dañoo soxla des solution à long terme soxla des solution à court terme maintenant pour les solutions à court terme mooy ni ma la ko waxee mooy descendre d'abord sur le terrain maanaam def benn constat def benn étude de de de boo xam ne état de lieu boo xam ne dina la mën a permettre yow automatiquement di nga mën a jël ay dogal parce que dogal yooyu ngay jël ça fait partie des actions qu'on pose boo jëlee ay dogal ba pare maintenant nag nga def une projection projection boobu nag ngay indi mooy entrer dans le cadre des politiques structurelles yoo xam ne au fur et à mesure ñuy dem. ñu am li nga xam ne moom la ñu bëgg. mi ngi mel ni tey ku doon tabax kër nga fekk kër gu ñu tabax ba pare mais tu vas déconstruire avant de construire. mais dogal yéen a ngi koy jël dans l'illégalité hein. comment comment euh, bu ñu jëlee par exemple. Euh,